par rapport ak phénomène bi nga xam ñu ngi koy gis ci jeunes yi ak seen manque de respect par rapport à la religion mais yaa ngi ma yóbbu ci laïcité yóbbu ci kii dama delloowaat ah. xam nga ne laa bëgg wax foofu dama bëgg wax ni une minute waaw d'accord dans une minute jeunes yi ngay gis ni seen comportement xam nga ku leen war a yar ki leen war a yar mooy Sénégal dañu am ay acteurs il y a mooy marabout bi mais il y a ah mooy oustaz bi ak nangam bi ah mais boo jëlee tey ki war a ki war a yar sénégalais yi ki war a yar xale jeunes yi ki leen war a yar mooy imam yeeg oustaz yi ñoom dañu démissionné dañu toog fële léegi nag keneen ñëw jël ko puisque la nature a l'horreur du vide ñoo ñu jël affaire bi waruñu leen yar mënuñu leen yar loolu moo waral tey xele yi xele yi amuñ ku leen yar. merci beaucoup amuñu éducation manque d'éducation boobu moo tax ñuy def li ñuy def léegi nag qui est responsable le président est responsable de ces jeunes là yoo xam ne jàngaluñu leen loolu moo tax nag léegi ils se reviennent contre lui ndaxte ñoom dañuy xeex jamono bi kii dafa bëgg mandat kii dafa bëgg kii dafa bëgg pouvoir alors que ñoom ñëpp personne n'a le n'a naa le droit de gouverner le pays. merci loolu mooy affaire bi salaamaaleykum